xam ne yàlla moo njëkk julli ci moom sëriñ bi tey lan nga ñuy jox ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay njëriñam ak yan tegtal ak lan mooy salaatu ala nabi waaw salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. julli ci yonent bi nag du caagin ni teg sa sajaada naa allahu akbar asalaamualeykum. Mhm. waaye mooy ñaanal yonent bi. mooy ñaanal rasulullah ñaanal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne nii képp ku koy def. Mhm. yàgg yàlla yéen a bokk di ko def. ndax moom moo ko digal malayika yi ni ko yemul ci digal leen ko dani dama koy def defandoo leen ko ak man. maanaam julli ci Seydina Muhammad julli moo ko njëkk a def. moo ko njëkk a def ànd ceeg malayika yi ànd na bu leen ci yem nag na ngeen ko mortal wasallimu tasliman mm-hmm. bu leen yem rek ci julli gi léegi na mooy li nga xamante ni fi nekk képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg ñaanuk sunu borom mm-hmm. di wàcc ci yow del julli ci yonent bi maanaam lu ngay sàkku dara mu dëgër mu dëgër del julli ci rasul del julli ci yonent bi maanaam nga xamante heure boo xëyee nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mm-hmm. suñu borom ci boppam moom moo lay ñaanalal boppam allahu akbar waaw ndax ndax nee na benn boo julli ci moom ma julli ci yow benn fukki yoon nga julli ci man moom fukki yoon ma julli ci yow junni yoon te junni yoon boo julli ci moom sa yaram araamal na sawar kooku bokk na ci fonk gi ko yàlla fonk li tax ñu war koo fonk di julli ci moom mhm. xataa badaakat bu sama fi arsikal muazimi boo demee aras loo fay gis laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi lépp lu sunu borom fonk aras rek maanaam ci biir ajjana loo fa gis fonk mu fonk ko bind nañ ci turu yonente maanaam moom moom rek la yàlla jël turam waaw taf taf ko tur rasulillahi turu rasulillahi ba Seydina Adama tooñee sunu borom ba sunu borom war koo jéggal mhm. jéggal gu ba mu ko nee dañu ko jéggal ma ngir ci dara ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko foo xamee kooku mu ko damaa gis ni loo sopp lu nekk rek bind nga fa turam ma xam ni doo bind doo bind turu kii foo xamante ne ni dara dara ne wu fa <laughs> waaw moom moom yonent bi julli ci yonent bi dana tax a am ci kër yi kër yi nga xamante ne mooy këru abraar yi ñu tedd ñi biir àjjana di julli ci yonent bi dina la may ci kër yooyu julli ci yonent bi dana tax a bari ay soxna biir àjjana julli ci yonent bi dana tax ñu jëggal la say bakkaar julli ci yonent bi dana tax ku la gis sopp la uhuh. te xanaa xamoo ne alaaji pap julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw loo xamante ne nii eh, yaa ngi doog a dugg budd àdduna amagoo soxna amagoo dara uhuh. ngay julli ci yenent bi di julli ci yonent bi ba mu sax ci sa deret uhuh. doom joo jur kenn du ko yërëm allahu akbar loolu julli ci yonent bi moom moo maanaam buy bari looy julli ci sidina Muhammad waaw doom joo doom joo jur k ko yërëm ko yërëm moo xam yaa ngi ci biir sëy moo xam nekk amagoo soxna amagoo soxna maanaam ki mu dàq sax maanaam ki nga xamante ne daa nekk xale rek tàmm di julli ci yonente bi ba mu dem ba jaxasoog deretam lu mu jur loola day baax allah loola day barkeel ndax lan yàlla moo fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi dana tax mboolem lu bakkar rëy rëy rëy rëy rëy rëy ak lu mu metti metti metti boo boo ci saxee sunu borom effacé la bàkkaar yooyu julli ci yonente bi fi ne nit ki dina julli julli yi ko yàlla digal muy julli juróom mën na koo julli ba pare sunu borom taxañ ko ko sànni ko ko nit ki mën naa woor weeru koor ba koor gi jeex. Mhm. ñu ñu taxañ kooram googu du ca am lu dul xiif ak mar. nit ki mën naa def leneen lu yoo xamante ne nii ci ay jaamu yàlla la. yoo xamante ne yàlla mën na koo bañ a nangu. waaye salaatu ala nabi ak noo ko mën a defee sunu borom nangu ko. allahu akbar te bu bis pencee kat. fi ne boo xoolee salaatu ala nabi nit ki bu fekkee nii mi ngi koy liggéey dëgg. Mhm. bu bis pencee ku mu mën a yoreel. mën nañu jël jël jullem jox ko jël koram jox ko jël asakam jox ko waye salatu ala nabi mom yow mi ko def rek la ñu man maanaam àq bi nga amel do aadama àq boo mën a amel doomu adam ëlëk mën nañu jël ci say julleeg say koor lepp jox ko bam mu salatu ala nabi allahu akbar loolu yalla mo fonku yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunu waji bari na doole kenn du sallallahu alayhi wasallam kenn kenn kenn du moom billahi ta ta, te bari na ci ay salatu yo xamne bu fekkon tay ji euh, euh, lima bëgg nga xamanteni ndaw ñi tey jii mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi mhm. am na ci salaatu yoo xamante ne buñ ko téyewoon buñ ko téyewoon di ko liggéey daraja maanaam euh, euh, coono bi ñuy daj ci ndox mi bay àgg bitim réew ak lañ fay daj ak yooyu buñ ko dajee ci salaatu bi salaatu bi jox leen lépp maanaam am nañu ne ci réew mi sëriñ bi jamono yi ñu toll nag waaw euh, mbir mi dafa dëgër dëgër lool dëgër am na mhm. ci ñoo xam ne ñu ngi xool seen i way jur mhm. amuñu lu ñu leen jox waaw ñii ñu ngi xool seen i doom di xool seen i soxna amuñu lu ñu leen jox mais ndax mën nga am foo jaar nit. Mhm. jaar ak salatu nabi. Mhm. ba lépp yomb. salatu ala nabi gis nga gis nga gis nga sëñ Pape. salatu ala nabi fi ne boo am na bu ñuy wax allahumma salli ala al mawsuuf bil karami wal juudi. kim yaaw la kim yaaw salatu ala nabi la. maanaam fi ne nit ku ko soxal di ko doxal di ko liggéey sunu borom dana la may wërsëg ba doo soxlaal kenn. allahumma salli. ala al mawsuuf bil karami wal juudi ala al mawsuuf bil karami wal juudi waaw. nga koy nga koy saxal di ko liggéey sunu borom dana la dimbali ba doo soxlaal kenn kenn kenn kenn te loo ko ñaan dana la ko may. allahu akbar boobu ci sa ci salaatu ala nabi. ci salaatu ala nabi am na ci yeneen salaatu yoo xamante nit ki bu ko saxalee maanaam du tawat. du hmm? tawat bay dem hôpital. te loolu yàlla moo ko moo moo ko man moo ko mayee te salaatu boobu mooy allahumma salli ala sayyidina muhammad tibbil xulubi wada wa dawaiha wa nuurul absaari wa diyaiha wa xuutul arwaahi wa xisaiha wa nuurul absaari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi ne ñett fi ne salaatu boobu képp koo xamante ne yaa koy saxal ñetti téeméer boo ko def ñetti téeméer ñetti téeméer bis bu jot waaw suñu borom dana la dimbali ba doo tawat te boo tawatee di ko def tawat ji moom du dem kanam ginnaaw day wàññeeku ba jeex la jëm allahu akbar fi ne tey ci àjjuma ji nga julli tàkkusaan ba pare allahuma salli ala sayidina muhammad عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم غدفكو غدفكو 80 فوا ني ديغال باك باكارو جيروم نيت الله اكبر مي سيغ بي على النبي صلاه على النبي مو من دينا وار مانام غا خامتاني جيروم اتو صلاه بكار سونو بوروم دالكوي جيغال فين بوكو ديفي ajjuma ci guddi comme tey nga def ko ci tàkkusaan bi loolu lay def waaye ajjuma ci guddi ñeenti téeméeri at yoo xamante ne nii ci bàkkaar dañ la koy jéggal ci ci ci ñeent fukki ci ci quatre-vingts salaatu ala maanaam li nga wax léegi nga def ko maanaam guddi aljuma allahuma salli ala sayidina muhammad waaw nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nga di ko def euh, quatre-vingts fois boo jullee tàkkusaan ba pare waaw ñu jéggal la bàkkaaru quatre-vingts ans nga def ko guddi aljuma guddi aljuma quatre-vingts fois ñu jéggal la bàkkaaru ñeenti téeméeri at allahu akbar léegi loolu lan nga ko mën a ameel ci lu dul salaatu ala nabi te salaatu ala nabi nangu na nga am jàpp def ko nga ñàkk am jàpp def ko waaw moom salaatu ala nabi te mënoo julli te jàppoo déedéet te boo xoolee fi ne ñi bind ñëpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñi bind ñëpp ñiy bind ci science mhm. ñiy bind ci ci leneen ñiy bind ci leneen mhm. loolu lépp boo ko dajalee li ñuy bind ci yonent bi moo ëpp moo moo gën a bari xamoon nga ni abajada am na ay salaatu ala abajada bi xawasa waaw kalamana saxafa daxara saxada daxasa waaw xamoon nga ko déedéet xoolal fi ne boo jëlee alif bi waaw allahuma salli ala nuuril alifi fi nuril alifi bi nuril alifi xadada maa fi xilmi la salaatan wa salaaman daa bi daawi mulki la yaa alifu yaa alifu est ce que xam nga ni tur yàlla la lii de maa koy dóor dégg allahuma salli ala siril bayi fi siril bayi bi siril bayi wa sallim ala nuuril bayi fii nuuril bayi bi nuuril bayi xadada maa fi xilmi la salaatan wa salaaman daa يا باء واو اللهم صل على الله سر الجيم في سر الجيم بسر الجيم وسلم على نور الجيم في نور الجيم بنور الجيم عدد ما في حلم لا صلاة وسلاما دائمين بدائم الملك لا يا جيم اللهم صل على نور الدالي في نور الدالي بنور الدالي وسلم على نور الدالي في نور الدالي بنور الدالي عدد ما في حلم لا صلاة وسلاما دائمين بدائم الملك لا يا دالو nga xamanteni nonu nga koy topé ba abajada bi jeex ba 28 lettres ba 28 jeex fi ne boko defone bis bu nek manam salaatu bu nekk ak arafam nga di ko liggéey ba ñaar fukki fan yi ak juróom ñett mat bu la neexee tegal sa kurus bu liggéeyate kurus bu bis pencee bu la yàlla fayee doo kenn doo ñëwee kenn ku yàlla bind allahu akbar maanaam salaatu ala nabi li ci nekk ci ay xéewal doy na waar ak li ci nekk ci ay jaamu yàlla yi fi ne noonu mu amee ci xurufil hijaaiya yi mooy abajada boobu waaw noonu la amee ci turu yàlla yi fi ne bu la neexee nga ne allahuma salli ala sirillaahi fii sirillaahi bisirillaahi wasallim ala nuurillaahi fii nuurillaahi bi nuurillaahi adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawi mulkilaa yaa allahu allahuma salli ala sirri rahman fii sirri rahman bi sirri rahman wasallim ala nuuri rahman fii nuuri rahman bi nuuri rahman adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawi mulkilaa yaa rahmaanu nga xamante ne nii benn bu ci nekk rek ci asma ci asmaawul laahil benn bu ci nekk nga def ko turu turu turu turu yàlla ba mu jàpp maanaam kon bu dee fataahu bu dee da ngaa bëgg wërsëg waaw nga ne allahuma salli ala siril fatah fi siril fatah bi siril fatah wa sallim ala nouril fatah bi nouril fatah adada ma fi hilmi la salatan wa salaman daimaini bi daawil mulki la yaa fatahu nga def ko 489 mais kon sëriñ bi li ma naan wax naan sayyidina Muhammad mooy ko sakkan ki ko sakkan ki lii nit kon mën na am tedd nga am wërsëg ci julli ci rasulillah ci julli ci rasulillah fi ne ki nga xamante ne bëgg falu ak ci fal gu mu mën doon ci adduna ngay saxal allahuma salli ala sayyidina Muhammad as-sabih lil xalqi nuuruhu wa rahmatun lil haalamina zuhuruhu am na lim boo xamante ne nii boo ko dee def di ko saxal ku yàlla bind mënu laa teefalu waaw allahuma salli ala sayyidina muhammad ku yàlla bind mënu laa teree falu moo xam président nga bëgg a doon moo xam ministre nga bëgg a ne moo xam directeur société moo maanaam saxalal saxalal saxalal di liggéey salaatu ala nabi boobu ah boobu xam doo ko joxe gratuitement allahuma salli ala sayidina muhammad asaabix lil xalqi nuuruhu ah? wa rahmatun lil alamina zuhuru waaye loolu nag sëñ bi am na ci yoo nga baax ci wàllu loo xamante ne day jëriñ doomu adama boo ma ko laajee ma wax la ni la nangam lañ koy defee mais fi mu nii dëkk bi dëgëree sëriñ bi xaalis manqué mhm. problème am mhm. nga bëgg saa yoo xëyee am dépense mhm. na ñëpp bind اللهم صلي بنلين اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلاه صلاه تحتوي تحتوي على كل عدد على كل عدد وتسيدنا وتسيدنا بها بها في كل بلد في كل بلد وتبلغ هنا بها وتبلغ وتبلغ هنا بها وتبلغ لنا بها في كل مقصد في كل مقصد خمغ وتسيدنا بها في كل بلد سي موي nga def ma ab sang ci mboolem fu ma ma dem manam fu mu mën dem rek nang ma fa def ab patron def ma sang salatu bobu la lay ku ko téye jaru ngay mbëkk gal gi di dem fenn ak mu mën a doon doo ñàkk dépense do ñak xaalis ku la gis bëgg la ab ab ab ab am nafiq rek mo lay bañ ku la gis bëgg la ku la gis dalay bëgg non la amé ci salatu ala nabi manam salatu ala nabi mën nga koy wërd mën nga koy bind di naan mën nga koy bind di sango mom salatu ala nabi nangu nangu na lepp mën nga koy bind di naan mën nga koy bind manam ñi febar. ñi feebar nek ci hôpitaux yi wala wala feebar nañ feebar boo xam ni mhm. euh, euh, euh sen dox mhm. yombatul mhm. wala amna ci ño xamni dañ nan rap mo len dugg man gis ci ñaar ñoo xamni ñoo bokk ndey ak bay mais dañu am rap mais dañu dañu dañoo jeex a jeex a jeex jeex ba ba ma len gisee sama yaram sax dafa daw mais lolu ndax ku am Rap rap ne ci mom salatu ala nabi mën nako ko mën na koo salatu ala nabi mën na mën na mën surtout salaatul fatiha ak jigéen ñi nga xam ni dañu yàgg macha allah ci ci bindin mhm. euh, neex nañoo bëgg mhm. euh, ci wërsëg yàlla wërsëgal na leen mhm. mais mënuñu am borom kër loolu de maa ciy joxe lu yéeme muy muy salaatu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim boobu yëpp allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw yaakaar naa boobu moom ñëpp ku mën mille cent quarante ndax salaatu boobu jaamihun la jàpp moo jàpp cent quatorze waaw léegi boo ko dee def mille cent quarante bu la neexee nga bind ko mille cent quarante boole ko suufu xorondom suufu xorondom waaw manaam mooy xorondom yooyu fi ñuy dox fi ñuy dox nga tibb suuf si def ci biir waaw léegi bu dee bu dee góor gu amagul soxna waaw mu ma day jël karawu jigéen raxas ba mu set def ci biir bu dee jigéen joo xamante ne amul amul borom kër mu jël karawu góor raxas ba mu set def ci biir saafara si di ko di ko di ko di ko sangoo sunu borom dana ko tànnal jëkkër ji gën wala mu tànnal ko soxna si gën allahu akbar te boobu loolu nga waxaat lim bi waaw allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim waaw 1140 mën nga ko wérd mën nga ko bind mën nga ko wérd bu la neexee nga wérd ko ci ndox nga tifli ko ci nga def ci yooyu ma wax ni yooyu lay àndal bu ko boko boko ko boo ko dee sangoo sunu borom dana la tanal borom kër bo xamanteni mo gën ci lool bo dé góor bo dé góor da nga am soxna bo dé jigen da nga di nga di nga am borom kër tayit bala gënal bala gënal lay doon